ma ñett yooyu rekk a fi ne xaanuun bu dellu ci justice xaanuun bu dellu ci guerre xaanuun bu dellu ci musique yi ñetti xaanuun ñoo nekk mais ñett yi rekk ay defar jikko doomu aadama loolu moo tax rekk bu yiwee bu yiwee baax na buy yiwee rekk baax na bu yiwul bu dagganee bu ko jegeñ waaw kooku noonu rekk la mu xaw dellu nag ci projet yi humanité bi am xam nga yonent bi ci boppam dañu koy jàngal te lu am solo dafa am nu ko ko yi waxe waye lu amul solo itam dafa am nu ko ko yi waxe parce que yàlla daf ko ni ko na def tatabbu fi ma yataallaq bi hayat yaqub xam nga ca ibrahim yàlla wax ibrahim ni ko wattul sa baay wattul sa baay ndax sama noon la ibrahim boobu yàlla jox ko ñaari doom ismail ak ishaq Eh, ñuy wujje ci biir kër gi ba def ñaari tendance tendance bi jur arab yi tendance bi jur juif yi affaire ba di dox ba histoire Yaqub ñëw parce que Yaqub Sëriñ daan na wax ni sax mooy Israël moom ca nam ko daan waxe Euh, mu ni parce que yaqub moom la ñu tudde woon safwatullah te nee na safwa mooy isra nee il mooy allah waaw moo tax ñu ni israil waaw moom yooyu ku ko daan yitteel la <laughs> waaye du yitteel ñi ci des am na benn góor boo xam ni Sénégal yëpp moo ci dàqoon a jàngale siira waaye doj wi ñu wàcce woon suñu maam eh, Hawa dund na ba dee mënu ko tudd ndeysaan ndax sarndiiba la ko daan tudde te doj wa sarndiib la tudd te moo fi dàqoon na jàngale ndeysaan waaye moom sarnadiba rek la daan wax du wax sarandib sëñ Babacar mujj ni ko yaa ngi bëgg rey nit ñi kenn du wax sarnadiba waaye sarandib la ñuy wax même Dimashq sax mënu ko tudd dam sàq lay wax lay ndeysaan waaye yoonam nekku ci boo ko waxee mu ne suma fu waaw wax na dëgg ni mbiri Yaaqub dafa doy waar sunu borom topp ko mook yonent seet fi mu jaar yépp doomu euh, ibrahim yi isxaq ak ismail lan lañu doon xëccoo kii ni maa gën a yey kële ni déedéet maa gën a yey dong nag ba mu jur li mu jur yépp xëccoo boo xam ni ba léegi ba léegi kenn noppalootu ba ni ca góor ga yaaxub léppam yàqoo ci doom yi mu jur seen lépp yàqoo ci ndax rekk sababu yusuf te moo leen gën tuuti waaye ñu dugal fu dara xajul mu nekk affaire ñu topp ko bakkan ak lu kenn xamul coow li fii coow li fii arab yi jaar fii juif yi jaar fii nit ñi jaar fii di soow di soow fan la soow bu mujj lool rekk la yàlla buggoon wan yonent bi di ko laaj projet bu am di ko won projet bu am njëriñ ak projet bu amul njëriñ su ko defee bi Yaaqub amee chance daje ak Yuusuf te yuusuf ndekk dund na deewul te ndekk yuusuf alkuwul am na nguur ma nga ca Égypte ba mu dem fa moom mbokkam yi lan mooy mujj mooy mu fóon ko waaw li coow liy bare li xëccoo biy bare at yi mu traversé benn fóon ci benn minute moo jeexal projet ba illaa haja fi nafsi yaqub qada waaw bu ko defee ñu dugal ci affaire iskandarul awal dugal ca histoire ñoom Napoléon Bonaparte dugal ci projet yépp du passé illa haja fi nafsi yaqub qada dugal ci projet Napoléon Bonaparte dugal ci affaire Russie dugal ci ñi ci des général de Gaulle ak coowam ak dafay défendre France dellu si ñu dàq ko jëlaat ko ko mu feebar génn réew mi ñu folli ko illaa xasa fi nafsi aqul qatar donc ba ba ngay ñëw Sénégal sax waaw PS ngi PDS ngi ñu ngay xuloo Ablaye Wade ngay reyante ak Ablaye Abdou Diouf nangam nangam ñu ngay wate nangam ba ñu xëy ni Ablaye Wade dàq na Abdou Diouf illaa xasa fi nafsi aqul qatar waaw noonu rek noonu rek noonu la projet yëpp noonu la mel bu ko defee am na lu culture tubaab yi sàkku kenn mënu ko ñàkk bañ def waaye itam xam ca fooy yem it baax na aayul nag waaw nga xam ci fooy yem baax na aayul nag xam nga wax naa la ni affaire guy fitna bu ne teg nañ moom ko ci parce que rek nee naa guy du yàlla waaye mën nañ ko jariñoo xam nga parti bi moo ma répondre wax ni ñoom kenn du leen génne ci seen aada nangam nangam sengoor ni ma santaani ko ma ne ko xam naa ko parce que ki ko doon wax déggul tubaab déggul wolof ça il faut le dire mais soo ko seetloo ba seetloo yooyu mi ngi fi di jar lu ne te jarul dara il faut nit ñi xam seen priorité bu ñu xamee seen priorité rekk crise yi dana wàññeeku waaye su ñu xamul seen priorité lu ne dañ cay nekk di soow te du ñu xam lan te il faut éviter ça waaw moo tax toujours bu la kilifa jege deel jàng làmmiñu dëgg booy waxanteeg moom ndax dafay ame njariñ waaw bari na kilifa gu ñu la ni kenn ñemewu ko te boo waxee ak moom ci langage yu dëgg rek mu sopp la man xam naa ko ba tax na itam di ko jàng di ko jàng baax na ndax ñun dañu ñuy noon nit ñu nga xam ni yàlla dafa leen mayoon lool ñuy jëfante ak ñoom ci boobu côté euh, mën na am nag ñëpp bokk ñu xel waaye itam yow li nga war a konteel loola loola rekk ci ngay konte bu ko defee yàlla mooy xam lu muy barkeel ak lu mu dul barkeel bu ko defee léeg-léeg kilifa song la ne la nangam mooy am nga teey rek waaw nga teey rek ba wéet ak moom ni ko lii nga wax ni mooy am mënul nekk waaw mu ni la lu tax nga ni ko nangam ak nangam a tax mënul nekk bu ko defee bu fekkee yàlla seetal na xolam mu jàppee la soppi mais bu fekkee kilifa lu mu yëkkati ci musiba nga ni ko lool la catastrophe lu mat a wattu la ñun dañu ko dund dañu ko dund dëgg su ko crise loolu mat ñu def très attention dama am tante boo xam ni moo ma boot sëriñ Babacar a ko yar miskin siin la mu nga dëkk siin muy tànn ñilaan musuma gisuma ku dëggu comme moom ak ku dëgër fit comme moom mas na saaga nit ba mu am crise cardiaque yàlla xam na ko ndax dëgër rek benn bés sëriñ Babacar si waaraate ca Tiwaawan fii mu déglu ko ni kii du philosophie sëñ Babacar Si nitu ko fi dugal dal di ñëw fekk si ma Dakar wax ma ko ni ma démb ci dimanche ji ni góor gi waxe du philosophie man xam naa ko ma dal di jël oto rek wut si coow naka laa gis góor gi fekk ci bëccëg la Ah, dama jël yoor yoor laa jël oto ñëw mi ngi wax sax naan ma ah lii de farata la ndax boo xasee ni maa ngi ñëw maag seen ndey dootuñu xam fu nu ne lu dul oto bi ñëw na te yow doo ñëw lu dul trois heures du matin waaw moo tax du nu gëmm bët mukk te oto bi déggu nu ko mu ci bunt moo tax di ñëw nii ba ca baax na ci nag ma ne ko farata rek ma tax a jóg sa waaraate démb bi ñëpp wax nañ di du sa philosophie mu ne tekk nag waaw ba mujj mu ni ma ñaari gorde bu ñu xëyee te bokkuñu ñu fu ñu jógee wax la benn dëkk yàlla leen yabal ni ma lii nga ma wax moom la ma sa yàmbaram si di kunte wax kon nag dootu leen ko dégg mukk ci sama làmmiñ xam nga kooku farata la waaw parce que it ñu bare defe nañ ni dañ ko war a bàyyi mu wax lu ko neex te loolu mënul nekk waaw wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan maa ko ko wax waaw dama koy tëgg nag waaw dama koy tagg wallaay kon ko ni ko rek nii la nii la waaye nag itam nii la waaw rek eh, dañu dem ci li ñu tudde al ahram mooy li ngeen di tudde pyramide ñu defal ñu spectacle son lumière mu yéeme lool am na ci benn pyramide bu nga xam ni ñetti million ciy brique la am na ci brique bu pesé trente tonnes te ña ko doon yëkkati amuñu machine bu leen ko yëkkati ñuy seet nag fan lañu teg seen tànk ba man loolu ba nga xam ni li ñu mujj ñun ñëpp mooy booba karawaas amul taggaate amul ndekk moo leen ko taxamat waaw gor boo ko taggee rey ko ndax dangay wàññi énergie baaxul baaxul góor kenn du ko tagg baaxul waaw ndax dangay damm énergie am wala nga jël yet ni ko kay liggéey téye yet baaxul dangay damm énergie baaxul su ko defee li baax mooy nit ki ñu bañ a yàq baatinam te taggaate dafa yàq baatin yet dafa yàq baatin waaw ñoom kenn yàqagul woon seen baatin parce que gisuñu woon ku leen tagg gisuñu leen it ku leen taxaw ak yet moo tax ñu liggéey liggéey bu toll noonu mais tey lu xew ah, ku nekk ubbi sa gémmiñ ni dangay ngay tagg sa nit waaw walla nga utal ko yet te teguloo ko ci yoon su ko defee li xajaaj waxoon xam nga xajaaj wax na ko dañ kon nommé chef de police ni ko pour mu sécuriser jullit yi ni mu ni bala ma sécuriser jullit yi sécuriser alquran ba noppi parce que alquran amul tomb te kon boo léegi kenn du ko jàng

te yonent bi wax ni ko làqu ci kaaba gi mucc nga moom mu bëgg a dindi loolu en tant que chef de police te gannaawam ci yonent bi la koy sës pour dindi ko seetal naka la koy dindee doomu sayiduna Abu Bakar def loo xam ne wax nañu chef de police bi ni ko du yoon mu daw làqu ji ca kaaba ga te yonent bi wax nañu ma ormaalal kaaba gi ku fa làqu mucc la mu dem làqu fa chef de police bi lu muy def dem jëli catapulte ak dabbaaba waaw booba yi tubaab yee tuddee char amagul boobu catapulte moo am ñëw ba jub kaaba gi rek bombardé kaaba gi toj ko ñépp ni euh, jant bu ko fenk

keroog ba mu dee ñu di ko yóbbu nee ñu jaww ji dafa xeeñ lit ko ba ñu ni waa àjjana wàcc nañu pour jàpp ci néew bi seetal loolu pour wax la ni lu nekk xam ci sa bopp rek moo ci am solo waaw waaye fooye ko nag du baax fooye ko moom moo dul baax mais fekk kilifa nga dimbale ko ci wax lu am solo la ñun daf daan dox suñu diggante ak kilifa yëpp yëpp nag yàlla xam na ko ba ci bu mujjul bu mujj yu yàggul yàggul yi te kilifa gooy ci waxal dafay xam li nga ko wax lan la dama jóge dama nekk Paris xaw fa yàgg euh, yàlla dogal Alaaji Abdul Aziz yóbbante ma ni nañu wax Cheikh mu ñibbisi ndax dafa mel ni réew mi yëg na ni roo xam nekk fi kon nag na ñibbisi mu dem ci Abdou Diouf wax ko Abdou Diouf téléphoné ma ni ma soo bëggee ma yónnee si la avion nga ñëw ma ni ko ëpp naa def ndax kon dañ koy def na te du baax bu ma dee ñëw rek danaa ñëw waaw ma ni ko ndax man suma voyage it nëbbu la laaj waaye buñ ma abalee avion ma feeñ waaw te loolu laa ciy bañ ba yàlla dogal ma ñëw bi ma ñëwee ministre de l'intérieur ni ma président ne daf la soxla ma ni ko nekkoon na ma may fekk ñetti weer duma ko mën a gis waaw dama am liggéey waaw mu ni ko bu ko waxee rek moo nekk ci moom wallaahi waaw mu ni ko kon nañ ko bàyyi ba ñetti weer yi mat ñu teg ci juróom-ñetti fan mu ni ko demal gis ko ni ko damay dem États-Unis parce que dama fay jang ben discours discours bu nga xamni duma ko jang ci touru senegal mais touru Afrique yeb la koy jang ba bëggoon ñu gisé ci pour une trentaine de minutes maniko soko ko soo nga ni ko sa frère néna nga bayyi ba ñetti wër yi mat mu wax ko ko mu ni ko entièrement d'accord tegu ci bat paté pour wax la ni kilifa yeb a bu boo ñom rek di nga leen manal dara waye bo ak mom ñom nak yàlla du barkeel sa làmmiñ loolu rek mooy li nga xam ni moo ci nekk ma defe ni nag euh, temps yi ñu tollu ñépp a jaaxle boo demee France français yaa ngay reyante nga dem Angleterre anglais yaa ngay reyante foo dem tey arab ya waxi noppi foo dem jaaxle fa ne wante li ma waxoon kilifa googu ni ko un milliard ci ay musulman te defuñu lu nit mën a gis ma ni ko ndax du ngeen soxla ji ñu ñu réislamiser leen billaahi waaw parce que xam naa ni soxla nañ ko mais boo fa demee gis leen danga naan ñi sang lañu kenn du leen wax lool mais ñoom yaay yëpp ni soxla nañu nga réislamiser ma proposé ko ko nag ni ko ndax yaakaaru leen ni mooy tane mu ni ma bu jógee ci ñaari réew de daañu ko nangu bu jógee senegal daañu ko nangu bu jógee Pakistan daañu ko nangu pour wax la ni réew dana tuuti te am cër li tax mu ni bu dee Sénégal dinañ ko nangu kooku beneen affaire la loolu nag dafa mat a sàmm te bi ci gën a mat a sàmm nag mooy xëccoo bu jar wax lu ñaaw dafa mat a wattu waaw dafa mat a wattu rek lu mat a wattu la lu mat a mat a wattu la ndax sëñ Babacar dafa daan wax ni doom sa maam de dafa wax ni di leen jàng tontu waaye bu leen jàng xuloo nee na jàng xuloo ku doyadee koy def waaw moo tax jàng xuloo mëtu ko waaw tontu nag moom faratal waaw lay itam léeg-léeg nit wax la loo xam ni boo tontuwul mu jur yàqu-yàqu kooku noonu rek la mais dëgg la nag ñëpp yemuñu ndax dafa am lu Sëriñ Babacar daan tuddee tabiatul xaal lu yéeme la waaw tabiatul xaal benn structure interne la bu nit ku nekk am mais kenn bokk kook sa morom baay bokk kook doom doom bokk kook baay najaay bokk kook jarbaat jarbaat bokk kook najaay structure interne moom ci la ñuy pour déterminer position nit qui face aux exigences de la société moom la ñuy wax tabiatul xaal su ko defee xëy bo ci agul bo né da ngay defal nit tarbiya c'est que dang ko yàpp ce c'est que dang ko ko manu lo defal ken tarbiya parce que xamuloo lan moy tabiatul halam. waaw baxul bu ko defee nak ñiy ame daaraak ñiy jéema euh, oriente nit ñeeg yépp dañu war a tenir compte ci li nga xam ne mooy tabiatul xaal waaw bu ñu ko deful rek àdduna dafay tukki ndax ñëpp yemuñu ñëpp yemuñu te itam bu réew tuutee te ña koy yaakaar ci biti réew bare dañuy watandiku xuloo waaw dañ koy wattandiku mu mel ni kon nag dëgg la nag moom Sénégal ku nekk xam na ko kenn ku ne sa bopp nga gis boo ko defee rek xuloo dafay daal di yomb waaye du tee kenn ku nekk rek organiser sa jahannam na nga ko war a organiser ndax li am solo mag ñi def nañ ko ba noppi moo tax yaa man adhara al jamil wa satara al qabih walam yuaxis bil jarira walam yaatiki sënda loolu ñu dem ba ci kanamu buur bi nag moo tax ñu sant ko won ko ni ko mënoon nga Euh, lu ñaaw li nu def nga def ko mu ñaaw kon daam nañu waaye tey yaa ngi ko jéggale ba moo tax tey mën nañu wax ni bari na ku naroon dem safara te dootoo fa dem waaw waaye du tee nag ñu organise fii loo xam ni dana tax ñu yiw ndax léeg dañoo xaw di exagérer ci yu bare te nit ki nag danga ko war wattu mu war la wattu mooy jagal yépp dem ci benn kër ka fa nekk taalibe cheikh sayid abdul qadir al jeylaani la waaye ko sopp sëriñ babacar la ma fekk fa benn borom mantu bu rëy naka laa dugg si mu ni ko

ba di ko wax lu mel noonu ca la gàcceem ca la gàcceem waaye taxul mu téye gémmiñam mukk dama toog tuuti rekk mu daldi ni ñun ñi Maodo yar gis nga ñun ñun bokkuñ ci ñi Maodo yar loolu la wax waaw ñun ñi Maodo yar ma ni ko yow Maodo yaru la mu ni ma lu tax ma ni ko sa manto tàngaay bii bu la Maodo yoroon doo ko sol mukk mu ne ma ah yow danga may tooñ di ma ne ko déedéet dama lay yëgal ne xam naa ku ñuy wax Serigne Cheybatu Maodo ko yar xam naa ku ñuy wax Serigne Alioune Gueye Maodo ko yar xam naa ku ñuy wax Serigne Moussa Niang Maodo ko yar ak beneen góor bu ñuy wax sëñ Babacar Si Maodo ko yar ma ne ko mais Maodo yarul la bu la yaroon ma xam la mu ni pat waxatul dara nit tuuti mu jóg dem yoonam gis nga yooyu dafa bare te it gàtt xel ca lay yem parce que Maodo itam na ni bu dee sa sëriñ am na ñeneen ñu mu nekk sëriñam ba noppi tey seen deret kon nag doo leen jaay lu ñu gis doo leen jaay lu ñu gis te daf ci am mag ñu sàggan ñoo xam ni gëmuñu Maodo gëmuñu Cheikh gëmuñu kenn waaye bu xuloo bu ñu bëggee xuloo rekk indi leen te kooku nag ban njariñ la am dama nekk kawlax xale bi ñëw ni ma kaay wuyu sa papa Serigne Bachiru Mbakke ma daldi jóg solo ànd ak moom ñu ñëw fekk mu toog mu ni ma toogal ma toog mu ni ma ñun ñii ne xam nga lu ñu doon ci yow ne ko waaw mu ni ma lan la ma ni ko yéene wa jur mu ni ma du lool rekk mu ni ma gis nga sa baay Abdou Aziz sa toog maa ngi toog sa baay Ibrahima sa toog sa najaay Alaaji Usmaan Kan a ngi toog mu ni ma Alaaji Abdu Kan fexe ba dem sa kër maam Sëriñ Tuuba jële ma fa indi dem sa kër maam Maodo jële fa àlla jaab du indi dem ca sa kër maam Abdoulaye ñas jël fa sabaay baay Ibrahima mi indi jël Alaaji Usmaan Kan kole ñu ko mu ni ma damay lay laaj bi gis-gis kan moo ko am ci réew man keroog dama waar ñun ñëpp ngi toog mu ni ma soo gisee Alaaji Abdu Kan tabaxul ay building ci Kaolack yàlla ak entretenir nit ñu baax ñee tax mu ni ma ma nekk ci biir këram Alaaji Abdou si nekk ci biir këram Alaaji Ibrahima si nekk ci biir këram mu boole ñoo Ousmane Kan lu mu soxla wax ko Ousmane Kan mu dem dox mais loolu nun fekke nañ ci dara fàttewuñu ko parce que man jàng naa Kaolack jàng naa ci Alaaji Abdou ca Kaolack jàng naa ci Mouhamed Yahya ci Kaolack bare na ku ma jàng ci moom ca kaw la parce que allah jaab du ko ne jur sama ndey bu ko defee yu mel noonu ay héritage la yu ñu war a préserver bu ko defee nit ñi nga xam ni amuñu responsabilité ñu téye seen gémmiñ parce que richesse la richesse la bu ko defee ñu téye seen gémmi te mag ñi amul ku mënula wax ak ñoom ndax dañu noble seen noblesse ëpp na man xam naa ko parce que fu nekk laa jaar ak ñoom toog naa bés ci Fatick Fatick parce que dama daan dem Fatick yéen xam ngeen ni Fatick ay wëllëre laa fa amoon dégg nga nañ fa dem temps yi nga xam ni tournée kenn mënu ko def ci réew mi waat naa ci yàlla ni nee ñu ko màgg am koo sant wala am koo koo koo sikk parce que booba kenn mënul genn ci rew bi ma wax la ko kenn ñëmi wu la genn waaw man rek ma ñëmi woon a génn waaw parce que jaxat baax yalla até ma tok fatik ma ngi sol ni farok ñuy préparer tanti ci yor yor lolu <laughs> kenn musuko gis ni suuti xalé bi ni ma am na kilifa gu nek ci bunti bi soxla la ndeke Alaaji Ibrahima ñass la ma daldi ñew ak sama forog rek mu ma solal sa mbub ma daldi dem sol sama mbub parce que bobu sol mbubb jafewu ma ndax mbub yu bon la daan am waaw mbubb ma dan sol ku ko jaay ci ñaad dërëm do ko jënd mako munima ma ngay sol ma ko ah aw ma leneen di ba kon ñu dem ñu dugg oto ba di dem di dem di dem ba ñu àgg ci benn barab man xaw ma lu may doy barab ba ñu fekk fa ñaari sang ñu fekk fa sëriñ Cheikh Mbacké fekk fa sëriñ Modou Bousso Dieng ca côté ba ca des ñu fekk fa waaw ñu fekk fa ñaari sang ndax fekk nañ fa El Hadj Abdoul Aziz fekk fa sëriñ Ndiassane côté ba ca des ñu fekk fa ñaari sang ndax fekk nañ fa El Hadji Seydou Nourou fekk nañ fa Serigne Tidiane Sy yàlla xam na ko ñu dajale leen ñoom ñépp nag ñu toog di waxtaan daje nañ ci yoor yoor ba tisbaar man maa ngi toog rek parce que xaw ma lu ma fiy def ni suuti fekk ñu ngi noddu tisbaar Alaaji Abdul Aziz ne ah ñun dey nu ngi wax rek waaye Cheikh na Tijaani mi ngi ni batsi rek ma ni ko dafa mel ni nag bokk ma ci ma ni ko loolu nag lu jar xam ndax nag philosophie philosophie yi mu ni waaw waaye nag sànni ci sa kàddu it aayul ma ko li ma sànni ci kàddu de mooy rekk daje yu mel nii di leen ko nëbbu njaboot yi loolu rekk laa ci xam daje yu mel nii di leen ko nëbbu njaboot yi ndax bari na njaboot bu ko fekk te daf ci dëgg yàpp leen te yéen lañu am daje yu mel nii bu leen ci booleeti njaboot yi bu ngeen demee ba amuleen xalaat sax ngeen nëbb kaamilu alxuraan dugg ci biir ku ñu jël ci jukki jàng ko bu ngeen génnee kenn du xam lu ngeen fa wax waaye lii njaboot waru ko fekke ñu ni teg xaaji Saytu Noor dal di tontu xam nga moom ba bu may bejjaaw xale bi lay wax loolu dafa tëxët mu jékki-jékki ni ah xale bi dee man de li mu wax d'accord naa ci waaw xale bi de man li mu wax d'accord naa ci man de d'accord naa ci li xale bi wax lii de bu ñu dajee ci beneen yoon njaboot yi mu ñu bañ ko fekk ñu jël kaamilu alxuraan ñu dugal ñu jàng alxuraan Haji Ibrahima Niass wax ni man de lii tax ma indi ko parce que man dama d'accord ci philosophie waaw ba di leen yëgal nag ni maa ngi ànd ak moom yàlla xam na ko gis nga yu mel noonu mën nga ko wax tudd jur daal ndax dafay fekk sa pas-pas moo ca àgg ne xam nga ni bu dul woon loolu keroog ñu ni ma kii lu mu fi wax ah waaye ñun nit ñu d'accord ci te loolu daf ma dal plusieurs fois te lu ci nekk yiw rek lay jur ma xam ni kon nag dëgg-dëgg la ma ko waxloo sell na ci sama wàll loolu nag boo sañoon ku ne nga séddu ko ci waaw boo sañoon ku ne nga sédd ko ci parce que lëfit du nekk damay dem damay dem nettali naa leen ko plusieurs fois parce que dama am benn wëllëre tubaab mu ni ma man daal bëggoon naa tuub cheikh wante dama jàng alquran traduit mu découragé ma ndax répétition yi dafa bare répétition yi dafa bare bi ci des mooy malaaka yi muy wax ni ñu ngay xaar nit ñi bu ñëwee ñu dóor leen mu ni ma malaaka dafa xaj ci nit ba di ko dóor mu ne moo tax man ma bàyyi ndax diine joo xam ni dafay jël ay malaaka ñuy dóor ay nit mu ne man duma ci dugg mukk ma ko nag gis nga yéen tubaab yalla yàlla séddewu leen diine yenn folklooru diine ngeen xam ma diine ci bopom xamulén leen bëggatul sax dund mag ko wax maniko répétition yi budul mom maniko ni mémoire bi du jouer rôle parce que maniko culture bi tubab yi mom benn ennemi lañu am moy ignorance té ignorance daggit la ci culture moo tax Maniko ne bi ben ennemi li am oubli motax page bu ne Yalla, wax la ca lam waxone page ba ca dess maniko alcorane eppul page toujours ñu ngi lay toujours ñu ngi lay fatali del wax ni suba su a ngi ba waxatu ni ngere a ngi rek ñu faté ngere lolo tax oubli moy nonu mémoire yépp ma wax ko ko man ko li nga wax nak ni dañu soxor ci nit man ko dama lay laaj ben affaire man ko lire ndax am na doole mu ma dédé man ko sib man ko feebar yi bu ci gëna metti mu ma sibiru man ko ndax yàlla du tek sibiru lire mu ne ma xàkkee ma ni ko dina ko ko teg ba yaay ji di jooy ma ni ko ki àttan fekk liir bi mënul dara mu teg ko feebar bi gën a metti ci feebar yi ba ay way juróom wëru ko di jooy kooku nga ni bu ëllëgee bu ko mag tooñee du fudd ndigam mu nu yàcc di ma xool ma ne ko ku matawatu la yooyu mu wax ni dana ko def ëllëg yépp mu ngi ci moom waaw loolu laa ca xam waaw ba tax na ñooyu di ko di ko yóbbuloo dafa baax damay def tournée loolu boo ko laajee sama mbokk deretu séréer yi daawuma toog mukk at bu ma demul ci ñoom dama daan def tournée ci seen biir surtout temps yi may jënd gerte di ko jaayi Ndakaaru dama daan dem ci ñoom ñu di ma jox gerte yàlla àtte ñu dab ma ci tournée ba ni ma ah, defe nañ ni gàmmu Pam Malick bi dafa mel ni camion tubaab yi ñu seen ñu jëm Tiwaawan dañuy interdire gàmmu Pape Malick bi boobu tubaab yee fi hmm. nekk man tubaab buy interdire gàmmu loolu fu ko nit ma see gis ñu ne ma loolu la ñu foog ma ne leen ñu wàññeeku bi ñu wàññi ko rek ca la ay wattak yendoo ko yàlla dogal ndax booba pap dafa daan am itam ay xaritam am daayiraam di def gàmmu buy def gàmmu xam nga ah loo ci man sa sang la il faut que nga ko ñëw jàppale ko mu defar tàntam bu guddee nga ñëw jàppale ko ñu defar gàmmu ga ñoom nag ñu xam ni loolu buñ ca dalee rek ñun dinañu intervenir te bu ñu intervenir rek ñu sànku boobu calcul la ñu def man naka laa agsi rek militaire yi agsi ci sama kaw waaw tubaab yi fii seen mitraillette yi fi tel tel tel tel tel yàllaa te soonu ma xayri maa ngi ko seen ca biir militaire yi ñu ngi amee bakku mas nga gis ko amé bakku di xex ak ko amé misrayet bu ngeen ko di gis wallahi ma song ko soni ci lay def fi mu ma ey eh, bu mako wax di la ak ko wax di la ah, suñu chat mi di jang jangam yi ñu ni dañ koy interdit ñepp ñew nak xex bi ba nga xamni militaire français yi dañu re rocceeku rek dem Serigne Cheikhu maa ngi gis mi ngi sol mbubb bu rafet waaye mbubb baa ngi takk deret Serigne Cheikhu si waaw ma ni ko mais góor gi sa mbubb ba ngi yàqu mënu ba ma ko waxati mukk ma tàgg ko nag defaroon ko xasida ni ko mu ni ma man kayaa daal di nag taxaw xam nga moom ma di ko foog nga taxit ku sa ndey sant surat sa bàyyi sant si sa mbokkum bàyyi sant mbàkke ma ni ko boo taxatul rek yaa xam ne ni mu kontaan nag wallaay ndeysaan gis nga yooyu daf fi amoon ah yooyu daf fi amoon yi xew nii yooyu ko jiitu ah, yi xew nii yooyu ko jiitu ñu toog nag góor gi sàmm ngor loo booba presque mi ngi ci téeméeri at waaye xeex na ca te bàyyam wëli ñu la bàyyam a feeñal Maodo waaw waaye mu nga tëdd ci sama diggu di xaqataay waaw ni ma bu ma yeboo dee tey ndax maa ngi doon ñee ñi ànd ak Alaaji te yàlla boole na ma ci tey seetal loolu bu ma yeboo dee tey ñépp kontaan koo gis rek ma ngay tagg boppam góor jigéen na ñu toog nag gisatuñu benn tubaab xamuñu fu mu dugg waaye blessé yaa ngi fi ci suñu côté ak ci seen côté ñoom ay yëgatuñu fenn fu ñu feeñ ñu jékki ba ci ëllëg sa ca yor yor benn tubaab ñëw seet si boo xam ni dafa mel na dama bokk ak moom ndey ba ma ko xamee fii ba tey officier la mooy coordonné affaire renseignement yi mais bi mu ñëw yëre civil la sol ba mu ñëwee mu ni ma xam nga xaritoo mën na lu nekk wallaay ni ma ndax man sama jëmm fii ci sa kanam xaritoo rek ko mën a def waaw ndax ña ma bay ñu nga ca pexe yu dara baaxul waaye lu ma ci mën a yàq naa ko yàq waaw waaye dama ñëwoon rek di la ñaan benn service mu ni ma gis nga ñun benn gànnaay symbolisé wul suñu présence fii lu dul fetal ma di la ñaan fetal yi xale yi jël rekk nga delloo ma ko te mësuma gis mukk baax ko moom ndax li muy bari liggéey yépp dana gis film bu neex ca Thiès téléphoné ma ni ma kay seetsi ko ma dem seeti ko euh, yàlla àtte xam nga loolu ëpp na sax di xaritoo waaw ma wax xale yi laaj leen danga te ngeen jël ay arme ci tubaab yi ñu ni waaw man ni li ci fetal jox leen ko ñu dal di dindi li ci fetal jox ya ca des ñu garde ko ay casque en fer ay grenade ak mu ni yooyu daal moom fusil yi rek baax na parce que moo symboliser suñu présence fii ci ëllëg sa lañ ma arrêté waaw bañ may jël si dañu meloon ni ku jël si président de la république waaw waaw fekk maa ngi fatigué bëgg dem vacances ma ni lii occasion le pour man ma dem reposer walaay bi ñuy dem nag capitaine bi nekk ak man ci gannaaw ni ma nag mais détendez-vous monsieur si ma ne ko ah je peux pas mu ne ma mais pourquoi ma ne ko je suis en train de mourir ma vengeance. Uh-huh. billahi mon uh-huh. mu mais gis le régime bi ma arrêté pour me tomber. tomber. moo pour féliciter ma te ma pour wax la ni aduna bi même li ci metti buñ ko rafetalee sax mo wayef hmm? waa c'est ça loolu mooy li ci nekk bu ko defee yàlla may nu ay baay ak i ndajaay yoo xam ni mën naa wax ni dañu bokk ci lu ñoo tuddee l'aristocratie mystique parce que boo xam lan lañu ci nit am dignité xam seen bopp jàng tabarkal la xam lu ñuy def ku ci mel ni dégg nga sëriñ Cheikhu tabarkalla tabarkalla bil barke nga xam ni dafa xam boppam ku ci mel ni sëriñ Tijaan nga xam ni kenn mënula la ko nettali Pape Cheikhu dafa xëy rek ni damaa xeex ak sëriñ Moussa ñu nga sañ ba bés nga gis ko sañ ba àgg foofu ni dangaa xeex kenn mësu ko gis te rek tëxatu tëxatu aristocratie bi la du leneen ci affaire chatran ji rek kii ni kalima farisiya la kii ni kalima turkiya la seetal affaire doomu soxna rek kenn ku ci nekk nga sañse ba xam kaw asamaan la jóge wala de dañu mujj di reetaan di reetaan pour wax la ni ñooñu boo ci jëkkee te nekk ak mag ñu mel na ñi ñu nekkaloon kon yéen ngay gis ni espèce su ay xusaabilaat rek lay doon waaw ay xusaabilaat rek lay doon du tekki dara te yi may soog a ñëw ci waawoon noonu dama amoon benn baay boo xam ne dafa tëxët tëxët tëxët mësuma gis ku tëxët ba àgg ci moom moom bu ngeen fàttalikoo am na góor gu ñu daan wooye góor gi moo du xabaan te ci famille Macky dafa daan ñëw bu ñëwee ci soxna asukat ni ko astu astu astu may ma cheikh waay ma yóbbu ko sama kër dafa dëxët mu ni ko kenn du ñaan loo moom yóbbul waaw bu ko defee mu gàddu ma yóbbu ndeke ma nga jëm ak man kër Moulay Ahmed ca kër tant bàjjen selli foofu kër bàjjen selli ci Tiwaawan lu am rue Vincent am na fa te boobu yëfu yaa xayti amul waaw mu yóbbu ma fa jëndal ma jàlla bu ndaw dàll bu ndaw jëndal ma abaya bu ndaw jubba bu ndaw mbaxana bu ndaw wut valise bu ndaw def ci yëpp nag ni waaye ca nan demaat bu ñëwee ci jigéen ji jox ko pour wax la ni dañu vivre avec des gens yu nga xam ni amuñu ci kaw suuf loolu boo ko tàmmee ba gindi ci te noonu nga leen amee ci tubaab ya noonu nga leen amee ci arab ya mais lu lay jaaxalati ah kon enfantillage yi yëpp daf lay reeloo sax daf lay reeloo ah gi mu xaban ni mu tëxati woon bu ñëwee ni astu astu may ma saawaay ma ni yóbbul kenn du ñaan loo moom seetal lool ci yooyu lanu jëkke suñu najaayu gànnaar yi sog a ñëw kenn ku ci ne mat la mu doon tabarkal la nuy jàng ci ñoom di ànd ak ñoom tukki ku ci mel ni Mouhamed Yahya al alawi ku ci mel ni Mouhamed Yahya attandari ku ci mel ni euh, euh, naka la tuddati euh, wullu fattaan محمد علي بلو فتن اك ركجي سلمو اك محمد الامين سما سوخنا دامي واخ ني مبوك دال مو فور باسكو محمد الامين بي دي نيت كو ويختال تا بوكو خولي بكانم بي فاتلي لا بكانو تانتاسو سوريرم بي فاتلي لا سوريرو تانتاسو لول دال دوينا وا واي فك نا ньо بوك بن مام ньо بوك بن مام سي ديغنتي ني لا نو نيكون ها di jàng ci ñoom keroog bi Serigne Babacar di bëgg wuy ci boromam te gouverneur ñëw ni ma dama bëggoon nga jox ma testament góor gi ma jàng ko dama génne testament Cheikh jox ko wallahi ni ko mu ngóob mu di ma xol ma ne ko fii ñaari testament amu fi bu Cheikh rekk a fi nekk da fekk dafa ñëw fekk góor gaa ngi tëdd mu ni ko metti lu naa lool ndax ñu ma nommi gouverneur rek ma ñëw fi fekk nga feebar te bu ma sañoon fekk la nga ñu collaboré mu ni ko déedéet paasewul na nga ànd ak Cheikh rek ngeen dem ca néegam ngeen waxtaan ndeke booba loolu la ma bëggoon laaj wante góor gi ci yitteem presque trente minutes yu nekk mu ne Omar Samba seetal ndax noppi nañ ndeke booba yàkkamti na man noppi ba ñëw rendre ko compte ba ni gouverneur dem yàllaate ma ñëw wax ko li gouverneur wax mu ne ma kon nag boo yóbboo defe nii defe nii defe nii defe nii ma ne ko loolu kat kese kese du ko doxal ma ne ko kese kese du ko doxal laa dama dégg soxna sukan wax la lenn ndax dafa am gan yu xawul bare doole noonu ñëw fekk juste nga jóge ci salle bi bu dugg mu ñëw fekk la ci néeg bi ni la dama lay sarxu rekk daldi sukk pour ñii ñàkk doole tey suga agsi nga génn rekk jàngal leen Faatiha nga ni ko demal waxtaanal maag ñoom nga di ko tooñ li ko demal waxtaanal ma ak ñoom mu ni la jox jox ma li la Maodo joxoon ba mu koy jox rek ma waxtaan ak góor ñëpp sakkal leen pexe waaw waaw loolu mooy dëgg parce que nit du toog kese kese waaw nit du toog kese kese waaw te kenn mutu doon nu koo mutu la ma la ko wax waaw caaxaan baaxul mu ni ma rek jox ma moo tax il faut faire attention parce que gis nga cheikh yi mu wax yépp boo xoolee testament spirituel am gis lu ci safaanoog la mu waxoon waaw bu fekkoon nga am ko rek di nga gaañ nit ñi gaañ sa bopp ko loolu mooy li nekk yooyu li ma ci def xaw ma na mu toll

est-ce que mën naa jot ci caabi caabi jàkka Maodo ma ne ko tamaa la koy jox ma que je ne suis pas gardien de mosquée uh-huh. hein, ma ne que je suis un commerçant je fais du commerce Nak mu nit dafay dof mm-hmm. parce que xamul woon loolu xamul woon ni ñun sunu yoon ci jàkk xamu ko woon keroog la koy soog a xam mu ne ko boo bëggee jot caabi jàkk da ngay dem ci ilimaan ji mu jox